jàmm ji info point net informer, xibaar yu sell te bu ànd ak njàngalee ak mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné bii nga xam ne moo di jàmm ji info point waaw salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum waa jàmm ji TV seen mbokk Malal Diallo Picc nekk kenn aussi ci doomu Diallo Picc dama ñëwoon tey. ngir def benn waxtaan bu ndaw ci ki nga xam ne moo suñu waajur nekkoon suñu kilifa yàlla def aussi yàlla boole ko waa réew mi ak waa bitim réew mu nekkoon ku amoon relation lool macha allah ak ku mel ni kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak ñi nga xam ne aussi muy président de la yi lépp nekkoon ko xam ne aussi daawul def politique li mu noon def mooy entrepreneur la woon mu njëkk ko nekk en Afrique de l'Ouest nekkoon koo xam ne ku doon liggéeyal askanam ku doon liggéeyal doomu aadama yi rawatina diini islam. ci li ñu xam ci suñu waajur dafa nekk tout tànk teelu jóge Fuuta dox ba dakaar bi mu doxee Dakar nekkoon Dakar Plateau ci benn kër tubaab ci ni ñu ko wax mag ñi waxee réer na ñaari at ñu ko gisaat am benn usine boo xam ne nekkoon na fii ci Caaroy Géej naan ko usine Baltique usine jën la woon ñu naan ko jàll Baltique laataa muy tudd jàllu picc bu liggéey usine jën boobu ba 11 ci bëccëg day jël bopp jën yëpp dem caaro caaroy géej jox ko ñu néew doole ñu togg añ mu koy def di ko def ba di mu siiw ñëpp di ko woy Diallo Baltique ci la amee tur ba usine ba tëjee mun jaaxle nag jaaxle mooy du usine bi tëj na am doon na am dara waaye ñi doon bénéficier wu ci la mu doon jëlee ci usine bi loolu ko jaaxaloon yàlla ci la ko commencé ubbil muy jëngu ci picc di yëngu ci picc mujj bi mu yëngu ci géej gi dugg ci lu bëri ci résumé xam naa peut bu doon am nañ temps dañ la gën a yaatal mais ci tënk daal ci géej la commencé picc yi école jën mu dem di pare jëm ci àll yi nekkoon ko tubaab boobu su rëbbee su boosee liggéey ko tubaab bi dem rëbb ay picc di ko indi ko tubaab bi bu tubaab bi amee gan ñu intéressé wu ci di ko yóbbu France mu dem ba am agrément ministère de l'environnement jox ko agrément mu dem ba vraiment wax dëgg yàlla ñu xam ko ci liggéey mu commencé implanté wu fii à yi fekkoon fi benn góor bu baax mooy suñu papa euh, papa yi lay Seck fii boobu boo foo tool woon ci Pikine rek da ngay séen safara bi quatre heures du matin xale di jàng alxuraan mu daral ko fii à côté ñoom ñu ñoo dend kër mu dem ba ànd ak waa Thiaroye dem ba taxawal usine. Euh, kiiw yi ñu defaree picc ñëpp naan xoolal paa yi dem dëkk fële dem tabax benn batiment boo xam exclusivement pour picc kese ci dëkk mu nekk ku fi romb rek loolu moo la jëkk impressionné ba njiitu réew mi dégg ko ñëpp di fiy fréquenté njiitu réew mi Senghor du fi ñëw ak njabootam chaque vendredi chaque week-end noonu la dem ba mu ne ko difficile boobu buy ñëw fii fii policière nekk te fala la motaar doon yem yàlla def aussi foofu policière nekk ba fii da ko doon dox ak mu àndal motaar du mën a jàpp ay xeer la woon ak suuf su bëri ci mag ñi li ñu nettali ñooy mujj mu ne ko dama lay defal télé mu ne ko su dee téli bi dina yegg ca jàkk jumaa ja ñëpp di ci gis seen bopp nga def ko su mënta nekk bu ko def noonu la Senghor di xëccee télé bi mu dem ba jumaa ja dem ba fi kër Étienne nekkoon fi nit ñi doon fajoo dem ba fi mu toll tey fi mu toll tey mooy Télé Diallo fu mu yem looloo ñu doon woowee Télé Diallo donc loolu bokk na ci histoire am xam naa dinañ ci ñeneen ñëwaat yeneen jamono gën ko yaatal nekk na aussi koo xam ne moo njëkk nekk entrepreneur Afrique de l'Ouest nekk na koo xam ne ku taxawoon diine islam la tabax na ay juma yu bari macha allah ba ci dëkk président Macky Sall fi yaayam waajur bu jigéen dëkk yàlla yàlla yokk seen leer am na ko ma ne 4 millions et quelque la fa defoon vers les années 67 dem naa ba foofu imam bi wax ma loolu ne ma juma ji sa papa ko dafa foofu gàmm naa fa foo demee fu mel ne jaaba fu mel ni Pikine ak feneen a feneen ba ci fi ñu ko denc tey jàkka jooju moo ko tabax mu defaraat ko bi ko suñu papa Seck sance mu defaraat ko defar dal yi defar sóoróor yi tey ji fa lañ ko denc donc loolu moom lañ leen mën a wax xam naa ci beneen jamono ñu gën ko yaatal boo defee lépp nekk njëriñu histoire Sénégal ndax lu am solo la ji